asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki àdduna rawatina ñi dëkki Thiès ñu ngi leen di ziyaara bu baax di ñaan sunu boroom weer wi ñu dugg di weeru koor yal na ci yàlla def ngëneel yàlla def ci jàmm ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di weer woo xam ne moom la sunu borom ni yaa ayyuha allazina amanu kutiba aleykum siyaamu kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tataun man grand serigne de Thiès tey sama vidéo bii di président Idrissa Seck di ko ñaanal sunu boroom yal na yàlla sàmm ko arko gën a yokku xéewalam bi jaay nabil karim alayhi salaatu salaam waaye dafa am ñaar ñoo xamante ni bii ay doomi Cees lañu di doomi dëkk bi waaye ñëpp bàyyi leen xel bi yàlla dogalee Idrissa jot flambeau bii mu jot muy kaar bi nga xam ni moom la soxna mi ture yoroon doon ko dawal ba yàlla dogal tay mom al président Idrissa sek mu tok ci yor volant bi wacce ñaari domi Cees man yeguma ni sax gawuma ni ide len wacce dama yëg ni kay bi signé contre lolu Idrissa yëgu ko xamul nit ñi ay domi Cees lañ ki ci njëkk kan la malik jeng di domi Cees waaye nak di domi Grand Cees don ko xamanteni ni dekk bi mu dekk kenn yebuko ñepp ñëpp ko xel mu ànd jël ndawam lepp def ko ci APR jéxal ko ci président Macky Sall kon bu yalla dogalé président Idrissa Seck ak président Macky Sall and doon murok soow ah buñu faté nak goné yi nga xamni ño ñoo ci gannaaw ah président Idi ma ngi lay ñaan Malik Dieng bàyyi ko xel ndaw la woo xamanteni bi alquran ni wabtaqi fii ma ataaka allahu daaral wala tansa nasibaka ad dunya ku bàyyi xel bopam la xel li mu yoron delloo ko ko boo ko mënee joxaat lu ko ëpp bul bu kenn ni nag grand sëriñ da nga koy yónni yónni wuñ ma de waaw waaye maa am yaqin ni lii dafa doon loo xamante ni bii faratala yaa ngi dégg président mu ni président Macky Sall mu ni réew mii fi mu ne nii employé yi nañ leen jël ñuy liggéey bu ñu demee nag bay bëgg a wàññi employé ah moomum réew doxatul ak kan Birane Seck di doomi canama nañ leen bàyyi xel jëlaat leen jox leen liñ yoroon ndax mbooloo topp seen ginnaaw ndax nag xutbul watan min al iman idi ku xam xam ni Cees nga bëgg ku la xam xam ni guddi guddi Cees ku la xam xam ni bàyyi nga xel ci alquran loolu yàlla ni yawma tubla sarailu fa ma lahu min quwatin wala nasir kon président ñaari doomi Cees yooyu bàyyi leen xel joxaat leen li nga xamante ni bii moom la ñu yoroon ci barke weeru koor wii nga xam ni ci la alquranul karim wàcc man nga ko sañ nga ko te def ko